juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru marax yeeg la ca gën a fës doomu ndar di ay nappkat ya uh, seen i néew uh, feeñoon ca waaxi cap yi indi lañ leen ba jébbal leen seeni i borom uh, bi suuf seddee lañ leen yóbbu ca morgub Ceem ak Caaka Njaay laata ñu leen di jébbal boroom bi ca sëkk jullit ya nekk ca Guet Ndar bu fukki waxtu ci bëccëg jotee moom ndax tax na nag ñoom njaboot gi di sàkku rek ci nguuru Sénégal jàppale leen ci mbir mu mel ni euh, coow loolee yamul dong ca géej diwaanu Mbuur yitam juróom-ñett ci ay nappkat faatu nañ ñaar yi ci weekend bi la juróom-benn itam dimanche ca guddi la woon euh, ca euh, géeju jifeer lañu faatoo ñoom euh, nappkat yooyee ñu ne nag euh, ñoom euh, ñaar ca ñoom rek lu ñu mujjee jàppale ñeneen ña dañoo mujj des ca géej ga beneen ponk mbokk yi muy laaju nag ca mouvement d'humeur ba am ca marché jën ba nekk ca Pikine liggéeykat ya ñoo mer ba futu bokk na ca la leen metti nee ñu daal kilifa ga ak na mu yoree bërëb ba tax na sax ñuy sàkku mu abale ca yooyu jamono itam fédération bi lëkkale boulanger yu diwaanu njaareem ne nag lu jëm ci euh, yokkub euh, kilob mburu boobee kaccet leen ca waaye nag itam euh, misu bu 250 grammes bi dinañ ko defar fa yéene koo jaayee ñeent fukki dërëm lu aju nag ci jogante palug njiitu réew ak jàngu bi jaarale ko ci archevêque yu Sénégal ñoom nag la ñu bëgg rek mooy ñu amal jongante palub njiitu réew bu amul benn fitna noonu ngeen ko gisee Kumba Matlo moo ñu fa toogal loole itam euh, waa jàngu bi wax loolu la kilifa diine yi wax jaarale ko nag ci doomu Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh Serigne Sidi Ahmed Sy te jak saaw la yëkkatee yi la kàddu ci teewaayu Cheikh Anta Diop mbokk yi ponk yangoo ngeen tax lu ma ñëw léegi ñu faram fàcc rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futur Média duñu tàyyi di ko wax xibaaru marax yi dañ koy dooree ak la xewoon ca Ndar geej ñeenti nappkat ñoom ñëpp fekk baax géej Ndar seeni néew euh, gisoon nañ ko ca waaxi cap gannaaw ba nag lañu leen indi euh, ndax euh, biig bi suuf seddee ca lañ indi neew yo indi ko ca morgub cem ak Caaka Njaay laata ñu leen di jébbal seen moro seen borom ci bëccëg gi maanaam bi fukki waxtu ak benn jotee ca sëgu jullit ya nekk ca géej Ndar njaboot gi nag di woowaat nguur gi rek mu jëli dogal nga la di gën a wattu suñu waax yi ndax dañoo jàpp ne wattu gi su matee jafe-jafe su amee mën nañ leen a wallu laata ñu ñàkk seen bakkan ñu dem ca ndar fekki faw seeni jëpp ak Habib Seck bi 4 heures du matin jot ba teg benn simili la néewu ñeenti nappakat ya ñu gisoon ca Cap Vert daal di ñëw ci diwaanu Ndar géej jamono jooju nag dëkk bi nee na ci waxtu bu nu mel la ñaari ambulance yëpp néewu ñeenti xale yooyu ñëw ci dëkk bi ca morgue bu ceem ak Càkk ñoom nappkat yi nag ba léegi seen mer feragul ñu ngay ñaan kilifa yi ñu jël ay matukaay bokk na ci lu ni mel ay bateau ramasseur ngir jafe-jafe dootul am. juróom-ñaari xale yi nga xam ne ñoo réeroon vraiment yegg si nag na ñi mais ñett ñi gisuñu leen. et eh, di gërëm nag seen xarit yi ak seen mbokk yi ñëpp ñu taxawaay bi ñu si taxaw taxaw bi rafet na di gërëm tamit notre maire bi nga xam ne jàppale nañu ni si mbir mi xale yaa ngi dee nag. léegi nag ancien système bi leen bëgg nag ñu delloo si mooy ban mooy bateau ramasseur yi parce que moo mun a désengorger pêche bi. yeneen kàddu itam yëkkati nañ ko jëmale ko ci ministre de la pêche ñu jàppal ni dafa war a gën a taxaw ci mbiru nappkat yi. pour réew mi xam ni ñun amuñu ministère de la pêche parce que buñ ko amoon en un mois. fukki mool ak ñaar ñu ñàkk ko ci ndar dara waralu ko ñàkk kaaraange bi nekk ci dëkk bi ci pêche bi donc littoral bi 750 kilomètres yi de Saint-Louis ak Kafountine yaakaar naa ni mool yëpp war jóg na xool ni xam ni amuñu ministre. ci diiru weer fukk ak benn ci ay nappkat daan nañu réer ñeent ña la gisee ca Cap Vert seeni néew ñu daal leen di jébbal seeni borom ci biir suuka talaata bi ca Ceem ak Càkka tiis woowee itam moo am ca diwaanu Mbour Géej juróom benn ci ay nappkat ñoom it ñàkk nañ seen bakkan eh, dibeer ji ci guddi la woon ca waaxi ji feer la eh, ñu ne nag ñaar ci ñoom rek la ñu wallu njaboot gi rek di sàkku eh, ñu wëral leen ba gis seeni néew naka noonu gaal gënu duggoon ak yéen seen ñaari moteur ñu dem ca Mbour Géej ànd ceeg Abdourahmane Diallo ci guddi dimaas la gaal gi daal di suux foofu ci jifeer juróom-ñetti nappkat ñoo fa newoon waaye ñaar rek ñoo jot a rëcc dara ci ñu rëcc ñooñu la bokk bët yaa ngi fees dëll ak i rongoñ mu ngi wax nu mbir yi demee. ñu daw di teete ba nekk ba toll këll jifiir gaal gi suux gaal gi bu mu suuxee man ma dëpp gaal gi ser gaal gi ma wut buum yeew ci gaal gi mu dëgër. daal di jox leen ni leen téye leen. 6 heures bi di jot noonu vie uul bi da leen a dóor ñoom ñëpp ñu wàcc géej man sa dama wàcc. wala maa fiyaat ñu fiyaat ba yéeg waaye vie moom fala jaare dee naan barra barra. après mu leeree nañ si la maadu dee biraan mu mujjee si man biraan. bi ma demee ba sonn nag si laay yootu buum pour yeew sama bopp su ma dee suñ gisee gaal gi jës sama koor. Mori Mbay di borom gaal gi mettit lu lool li nappkat yi génnee àddina waaye tamit li mu ñàkkee matériel am moom sax mu ngi ñaax nguur gi ñu dimbale njaboot yi. métti na trop comme ni ñu ko waxee rek booy lañ ñabaloon ñu dem liggéey biñ demee lag ñoom ñu maar ba seen maar man ñu ñibbi si yàlla fi ñu am problème si yoon bi ñu ngi nekkoon ak huit personnes yàlla def euh, ñaar ñi daal ñoo feeñ si si des ñoo disparaître ñu nag tey amuñu si benn. luñ si manati ndax ndogal la dal na suñu kaw si yàlla jóge xam nañ ko waaye rek dañoo bëggoon daal message bi Omar Gueye jot ko moom lañ koy jaale moom mi xam ne mooy ministre de la pêche mu dimbali ñu si. dëgg la nag saa su ne nguur gi di wax ay mbirum météo waaye ku xam nappkat xam ni amul feneen fu muy suturloo lu dul ci géej gi. Abdourahmane Diallo fa fekk ca Mbuur itam yeneen ñaari nappkat euh, ñàkk nañu seen euh, bakkan ca waaxu Gambia euh, loolu nag bu nu ko boolee muy juróom-ñett ci doomi Mbuur géej ñu boole ko ak ña ce ca fii ci Ndakaaru ñu ne xayma bi ci benn weer dong lu toll ci ñaar fukki nappkat ñàkk nañ seen bakkan fii ci réew mi. mu ne day bu nu sukkandikoo ci waa ANACIM dànkaafu gi amoon na ca njalbeen ka ndax itam bu géej gi yëngoo euh, sàmbaraax ak lu ni mel dañ leen di jox ay matukaay euh, terewul ñoom dañuy wéy di dem ANACIM dellu siwaat di ñaax ñi di xam ne ñoom ñooy nappkat yi ñuy bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne mooy xabaar yi jógee ci ñoom bintu Fatou Bintou Conté Thierno Laurent Mendy ñoo demoon seeti leen géej gi dafa sàmbara yëngatu loolu surtout weekend bi nga xam ne moom la ñu génn bu ñu dégloo ñi nga xam ne ñoom ñooy waa météo xamal nañu ne ay ngelaw yu foo la ñu jot a nemmeeku fi nga xam ne moom moo di ci côte sénégalaise bi de li ci ëpp sax ña ngay dem ba 40 kilomètres à l'heure waaw ci weekend bi vendredi jàpp weekend bi ngelaw li foroon na bu baax ba tax na sax ñun envoyé woon nañ ay xibaar donc ay bulletins yoo xam ne alerte lañ koy woowee ci daanaka àllarba bi mbir mi àjjuma la commencé mais àllarba bi déjà comme envoyé nañ ay xibaar pour wax leen ni que kat ngelaw yi dafay dafay takku bu baax. ñi nga xam ne ñoom ñoo di pêcheurs yi ñu dem nappi jii moo ne di ANACIM moom artu leen woon na génne woon na sa ab benn bulletin depuis mercredi bi passé. bu du lu weesu bulletin yooyu noonu muy alerte yi dañuy envoyé tamit ay ay SMS donc ay messages yoo xam ne dañ koy envoyé pêcheurs yi. waaw loolu am na ci loolu am ci parce que bu ñu xoolee système d'alerte précoce bi ñu am fii euh, ANACIM am na ci boo xam ne dafa féete ci wàllu napp gi am bu féete ci wàllu mbay mi am bu féete ci wàllu mënd bi mais mën jàpp ne jàpp nañ ni euh, bi féete ci wàllu pêche bi moom daanaka moo gën a mucc ayib sax yeneen yi donc pour wax la ni coordination bu baax lañ am ak euh, pêcheurs yi ak service technique yi dañ leen di envoyé ay SMS di leen di envoyé aussi ay messages vocaux. waa ANACIM nag ña ngay wéy yi tamit di topp recommandation yi nga xam ne ñoom lañ leen di faral di jox ci seen bulletin météorologique yooyu. ñu ci gën a ñaax rek mooy que ni ñuy bàyyi xel xibaaru météo yi ndax lu am solo la seen liggéey dafa euh, am lien bu particulier ak euh, jaww ji ni muy mel wala géej ji ni muy mel. te yàlla def na ni ñun am nañ ay jumtukaay yoo xam ne dinañ leen mën a wax loolu ni muy tëddee. weekend bi nag pêcheurs yu bëri ñàkk nañu seen ba kenn moo ne dee ay dee yoo xam ne mënoon noon ko fànq. Fatou Bintou Conté loolu tax na rédaction bu télévision Futur Média doxantu ba tefes bu Soumbédioune fekk fa nappkat ya kenn ki ne ak ni nga gisee mbir mi Cheikh Diop ci këstu bi. ay nappkat yuy réer ne mër ci li nga xam ne moom moo di waax yi ñu teg si ay tuut ñu daal ñuy xibaar ni daal di nañuy ñàkk seen ay bakkan lii lee doon ab situation boo xamante ni mi ngi gën a bëri si suñu jonn yàlla tey ñu nekk fii ci géej ba Soumbédioune nappkat yi lee di ñu wax an lan moo waral yooyu la accident. aw lu koy waral mooy ñàkk matukaay yu que ñun ay waroon am ay matukaay matukaay yi mooy waroon na wutal ni ay maanaam matériels yoo xamante tey jii saa soo demee géej foo mënta nekk war na xam ne kii am na jafe-jafe bii ñu jëlee la. tey jii marine bi mën nga nekk ci géej lu mat un mois ferme yoo xamante ne doo dajeek moom te waroon na mën a nguur gi jël ci matuwaayam ñu sàmmal ñu lool suñu géej gi bu baax. Sidi Bodian di ab nappkat lu tolloog fukki at ak juróom mi ngi dem ci waax yi moom mi nag di ñu xamal ni ñàkk na ay xaritam yu bari ci li nga xam ne. moom moo di ndox mi. naa xarit boo xam ne dañu koy wax Boubacar ci géej la des waaw ci géej la des mu metti ma lool lool mais mënuma ci dara damay jàpp ne yëpp ndogalu yàlla la. di nga am gile sax nekk ci géej mais boo gisul kenn ku la jàppale sedd bi mënoo cee def 30 minutes yi mat sëkk mënoo koo def ci sedd bi. li waral ba tey li nga xam ne moom moo di ñàkk bakkan doomu aadama yooyee bokk na ci li nga xam ne rek moom moo di ñàkk respecte yu soluk gilet de sauvetage yi. ak itam ñàkk dëppoo ak li nga xam ne moom la météo di xibaar. day tax digg tey gilet boo ko solee tamit boo boo yàlla defee di am soog si géej mën na la soutenir mais bu la gaal bu la gaal fekkul tamit mënoo si mënoo si am dara lu ñu wax ñu sukkandiku tey jii bu ne suba dina ngelaw dañuy toog passante loolu ba da koy def sax ba deux jours toog xaar loolu. drapeau ba ngay gis na la ci kaw na le maanaam ba lu tax ñu def ko fi météo moo tax ñu def ko fii. bés boo yeewoo nga fekk fi drapeau bu rouge rek maanaam géej gi neexul météo yu annoncé na ba pare dañuy toog. nappkat yi la nag ginnaaw bi ñu wéccante ak ñoom di ñu xibaar ni lu bëri ci accident yooyee nag mi ngi am ci li nga xam ne moom moo di guddi gi. Cheikh Diop jërëjëf ñu doxantu ba marché jën ba ca pikin foofee nag liggéeykat ya ñooy amali ñaxtu seen assemblée générale lañu joxoñ baaraamu tuuma ka jiite bërëb ba ñu ne kilifa ga euh, dafay doxale nu mu ko neexee te loola itam dañ koy gis ca doxaliinu marché ba ci noonu dañuy teewlu Alioune Fall yore liggéey kat yi kaddu yi ki ko taataan di Sali Sock Asmalik Diop ndax ñoom ñoo fekkee assemblée général ba. ñaan le président de la république son excellence monsieur Macky Sall mooy marché central na ñëw xoolaat marché central marché central ñu ngi koy góomloo ne daa jag dara jagut marché bi amul dara li fi nekkoon ba léegi moom moo fi nekk pentir na ku ko pentir mu rafet ku defal furéel mu rafet waaye li jaral ñuy wax marché central muy usine bi dara baaxu ci chambre froide dara baaxu ci tey le problème du personnel du marché central tey am na ay agents ne ñu ngi fii ci biir marché bi di fi liggéey di fi doole yaakaarum dara lu fi am tey condition yi leen teg dara baaxu ci amuñu statut amuñu dara salaire bi ñu leen fay dara baaxu ci ñu amal ñu salaire boobu ba léegi ñu ngi koy réclamer de gauche à droite nangu ñu cee wax nangu ñu cee jëm. nag ñu mois 16 mois 2 semaines la ñu amal ci arriérés de salaire. agents yi ñu amal ñu toll de 64 personnes. bu fekkente ne moom mënul résoudre les problèmes du marché mu personnel bi on demande son départ parce que ñun buñ la fi indee nit dañ koy indi pour mu taxaw askan wi taxawal pour ñëpp indiwuñ fi pour euh, benn nit ba xam da ngay ñëw pour taxaw pour sa bopp Mamadou Moustapha Mbaye ma jiite bërëb ba la ñu joxare bi baaraamu tuuma Salif Sow ba mu ko jege euh, bëggoon mu andi ci ay euh, leeral ci kàddu yi moom bëggu ci àddu ñu wëyal xibaar yi wax ci leneen ca diwaanu Bawol nag fédération bi lëkkale defarkatu mburu yi ñoom nag ñoo ni kaccat leen ca ti yokkub euh, mburu miñ doon dégg naan bagetu fanweer bu dañ ko yóbbu ci beneen njëkk ñu ne ñoom loolu defuñu ko waaye nag li ñu fas yéenee def mooy indi beneen mburu moo xam ne ñeen fukk lañ koy jaayee mu nekk nag 250 euh, grammes euh, duñ ci sori dañuy teewlu Xaadim la mu yore seen kaddu kaddu yi ka ko taataan di Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye toogal ko Futurs Médias ci diwaanu ñu jaaree mag li ko wax. ndax mu gën ci borom fuur yi mooy dinañ ko mën jaay suba ba ngoon lu damm te du wow ñu moo tax ñuy lancé appel ci ci ci waa dëkk bi ak ak suñu autorités yi ñu bëgg ñu bëgg a jaay mburu mi ci prix bi nga xam si ni moom mooy 200 francs ci poids bi 250 grammes te loolu. méngoo na ak suñu ak ak ak suñu fiche technique bi nga xam si ni moom lañu defaroon euh, ci mburu mi. ñu bëri nag ñu ngi wax ci rajo yi di wax ne boulanger yi dañoo bëgg a yokk mburu mi déedéet ñu yokkuñu mburu mi ñetti format moo amoon dañoo jël format bi nga xam si jàpp nañ ne. moom moo gën ci population bi jàpp nañ ne moo gën ci ci fuur yi ñu bëgg koo euh, amal te loolu fédération nationale des boulangers daje nañ waxtaan ci ci région Sénégal yëpp ñu xam ne pour sooy boulangerie yi il faut que ñu jóge ci 190 grammes dem ci 250 grammes. mën a dindi tuuma ndax ñu ngi dégg ci rajo yi ñuy wax ne boulanger yi dañoo bëgg a yokk mburu mi ñun yokkuñu mburu mi pois bi lañu la la la ñu defar. changé euh, prix bi te loolu loi moo ko jox loi moo ñu jox ñetti prix ñun tamit ñetti prix yooyu bi ñu ko xoolee ñu xool bi nga xam ne jàpp nañ ne moo gën ci boulanger yi moo gën ci borom fuur yi moo gën ci population bi moom la ñu amat. aywa ñu wax ci mbiram Ousseynou Diop moom nag ba àtteem dàq nañ ko ba fukki fan ak ñaar ci weeru février bi ñu dëgmal euh, bu leen fàkk fàttaliko Ousseynou Diop mooy ndongo bi am jafe-jafe nag ci wàllum yoon gannaaw ba mu jëlee message rek def ko ci page Facebook am loolee nag euh, mi ngi amoon ba ñu amalee ay cong ca Charlie Hebdo di toutaska taskay xibaar euh, ca réewum euh, France ñoom nag lañ ko doon toppee mooy kadd yo daal dafa méngoog euh, di xambak di yokk jëm ci wàllum terrorisme moom Ousseynou Diop nag fi mu ne ni dañ ko bàyyi bàyyi négandiku gannaaw ba mu tëddee ñeenti at yi kaso ñu wax ci leneen ñu leen ko waxee woon ci ponkub euh, xibaar yi évêque euh, yu Sénégal euh, boole nañu nag daal di woote wooteeb jàmm waaye itam jongante palub njiitu réew bu benn fitna tey jii ci suba ci message boo xam ne daal dañ ko jagleel askanu Sénégal ki jiite jàngu bi di Monseigneur Benjamin Ndiaye mi ngi woowaat nag askan wi ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax lu jëm ci wàllum jongante palub njiitu réew bi waaye itam juróomi candidat yooyu yooyu fas yéene samp seen ndënd dañ ci ànd ak Kumba Ahmad Lo ak Jaafara Ba jongante njiitum réew bu ànd ak dal te jaar ci yoon mooy li yitteel njiitu jàngo bi ci ab bataaxal bu mujjee ba ndawu réew mi rawatina ñi yëngu ci wàllum politik la monseigneur Benjamin xam xamle lu ni mel ngir ñu mën cee gën a bàyyi xel. waxtu wi diis na naam te ànd ak fitna looloo tax ñu njëkk woo ñëpp. ngir ñu jublu ci yàlla te ñaan ko bu baax a baax gannaaw ñaan gi nag ñu oo ñépp rawatina ñi di yëngatu ci wàllu politik bi ngir ñu wone ay jëf yu dëggu yi mën a tax ba ñu ànd dund ay élection yu wóor njiital jàng bu Dakar di woo juróomi candidat yi jongante ngir ñu sàlloo jàmm te ànd ak moom. ñu ngi ñaax ñépp ñi am mbébétu doon sunu njiitu réew ñu sóoraale bu baax yar ak teggin ci seen baat yi ñuy waxi jëmale ko ci seen naataangoo ñu sóoraale it doonte seen gis-gis ni mu uute. ñu sóoraale ne dëgg gi njubaay gi toppatoo ga war alalu askan wi ñoo war a wër ndomb seen yéene ngir réew mi loolee tax na itam muy ñaan askan wi ñu ànd ak dal na ñépp ànd ak dal ak teey nañu mànkoo ànd dàkk lépp liy indi fitna réew mi ñun ñépp ko bokk wareef la ngir ñu aar ko ñun ñépp te dugal suñu loxo ci liy tabax naataangeem. woote gi moo Monseigneur Benjamin Ndiaye li mu ci jublu mooy ñaax juróomi candidat yi ci waxtaan bu yaatu ngir ñu mën ñoo sàmmal li ñu bokk. aywa ñu sant la gërëm na Fatimata Touré des ba tey ci wooteb jàmm boobee ca saaw yitam euh, ku ne xam na ne jagsaaw foofe limaam Abdoul Aziz Sy baax daan wettali ko borom boromam foofee itam euh, doomam di Serigne Ahmed Sy yëkkatina fa kàddu jëm jëmlale ko euh, ci askan wi rawatina way politique yi moom it la abe wax rek la wax dañoo jëm ci jongante palub njiitu réew nga la nañ moytu fitna ak bépp loraange Cheikh Anta Diop la laatiir Jagsaaw di dëkk maam Abdou Aziz Sy baax fii la daan làqatoo di fi jàmmoo yàlla fii ci Jagsaaw la doomam di sëriñ Sidi Ahmed Sy yëkkatee kàddoom leel ko way politique yi ci élection yi ñu jublu. di yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi waaw nañ nit ñi dalal xel yi nit ñi wàccee tension yi sëriñ Abdou Aziz Mbaye way na ko léegi ci xasida bi nga xam ne góor gi moo ko defoon 1980 81 ci situation yoo xam ne réew mi boobu joxoon na. dënn yi tàngoon na mu doon ñaan rek ñëpp ànd ak sago bàyyi xuloo yi bàyyi saaga yi dégg bàyyi sànnente xeer yi te rekk ñu jano ko waxtaan waaw guerre yi gën a mag ci àdduna bi sax ba ñu demee ba muy jeex ci ay négociation rek la jeex Jaksaaw tey jii nekk na dëkk bu mag moom sax mi ngi sàkku nag ci nguur gi mu jàppale ko ngir ñu indi ay jumtukaay ci dëkk bii di Jaksaaw santé nekk lu am solo sëriñ bi defoon na ay effort ba ñu am post de santé fii ci fas ndax ku ci nekk xam na ne tund wi yëpp buñ masaana soxla dañuy dem ba piir te loolu metti na ci jaboot te moyens amul sëriñ baa ngi ñaan loolu ñu def xeebuñu ko waaye ñi ngi sant ñi ko ñi ko taxawee woon waaye di ñaan daal buñ ñu mënee dimbale ba ñu am fi maternité sëriñ baa ngi ñaan buñ ko mënee mayee beneen forage defal ko ko fii ci Fass ndax faas léegi yaatu na te am na ginnaaw loolu dina gën a nekk ndimbal te ku ci nekk xam na ne ndox mooy source dund gàmm ak jak saw ñu jàpp ko ci juróom-ñeenti fan ci weeru février bi di ñëw li ñu fas yéene waxtaanee moom mooy jàmm rawatina élection yi ñuy waajal la yooyu jongante palub njiitu réew Cheikh Anta tàmm nañ bu ñuy gis nag way politique yi def ay meeting ñu gis ñu ne ca gannaaw entraîné ba dëgër ñu leen di woowee garde rapproché wala garde du corps lum ci mën a doon ay ndaw lañ yoo xam ne euh, dañuy wattu woy politique yi tax na ñu sampaab laaj ndax euh, lu ni mel warees na ko gis saa su ne Abdou Latif Mbaye ne lu ci mën a am moom euh, garde rapproché mbir la moo xam ne des koy jàng bu baax dem nañ itam seeti waa Timbuktu Institute dañ ci ànd ak Touré ak Pape Sangone Mbaye ci gëstu bi. élection présidentielle di jege si ñu nemmeeku acteur yu bëri dañuy daal rek lijjanti lu jëm ci seen wàllum sécurité waral nag ñu daal di recruter ay garde rapproché nekk situation bu ëlëm xel yi ndax ku nekk rek mënul jóg ne agent de sécurité la. sécurité c'est la prévention mooy da ngay da ngay xalaat da ngay xalaat avant pendant et après léegi xalaat boobu man dama leen di xalaatal parce que damay jàngale samay doom lañu. dama leen di préparer su doon doole mooy sécurité kon euh, Senghor du nekk le gardien de la constitution du nekk le chef suprême des armées. Abdoulaye Latir Mbaye formateur waaye tamit agent de sécurité di ñaar jeunes yi ñu daal di rek jël seen i matuwaay bañ a topp benn politicien. kon nañu def attention ñoom parce que vingt jours de campagne dix-neuf jours nga nekk si campagne. après boo paree sa parent yi daw wuti euh, wuti euh, avocat dem fii di toppatoo di nangam mais loolu jaru ko. présidente Mbokto institut moom di ñaawlu privatisation agence de sécurité yi. li ci gën a graaw c'est même pas xale yi nga xam dañ ciy dugg ñu xam lu tax wala ñu leen utiliser pour de l'argent wala leneen mais li gën a graaw dëggantaan mooy. que actuellement boo xoolee Sénégal ak pays yi wër actuellement dañu nekk ci jamono boo xam ne dañu gën a privatiser sécurité te ku ne xam na ni sécurité fu état la la puissance publique mais extrême sécu euh, l'extrême maintenant privatisation Euh, bi ñu def ci sécurité bi loolu déjà dallu xel. période électorale tension bi dafay bari lool acteurs yi nag di ci profito ngir rek nag di ci profito ngir règlement de compte wala sax saboter seeni adversaire loole nag nekk ay jëfin yi nga xam ne rek dafay war a jóge ngir ay élection yu dal te jaar ci yoon. aywa Fatimata Touré bu nu jugee nag ci politique ñu wax ci leneen muy au conseil des collectivités territoriales la ñu bëgg rek mooy ñu jox leen seen wàll ci naw yi ci ñaareelu pàcc pour plan Sénégal émergent gannaaw ba ñu amalee ndaje mu yaatu moomee nag ca Paris euh, kuréel gi Ousmane Tanor Dieng jiite bëgg nañu euh, ñu jàppale leen ba ñu jëm ci wàllum koom ñu gën caa gis seen bopp ci seen ndaje euh, boobu ñu naan session tey jii ci talaata bi bu njëkk bi sax bi nañ ko ci teewaayu Pafaxa ñu ngi la woon ak Amadou Ba ay thématique yu bëri yoo xam ne dafay dundal dëkk bi moom la ñu waxtaanee ci atum 2018 au conseil de collectivité territoriale jàpp ne dugal na loxoom bu baax a baax ci gox yi ak gox goxaan yi daal di suqaliku rawatina ñu am koom-koom bu baax. boobu liggéey nañu ci euh, euh, gouvernance maanaam doxalin yi ñi li nga xam ne noonu lañu ñu mën a doxalee ba euh, collectivités yi gox goxaan yi. mën a demal seen bopp xam nañ ne gox-goxaan yi néew nañ doole xam nañ ne gox-goxaan yi seen budget demewul noonu waaye nag am na ay jumtuwaay yoo xam ne maanaam ay levier yoo xam ne suñ ko euh, euh, su leen ko joxee yombalal leen ko seen liggéey dina dina dina matt gannaaw ndam la nga xam ne am nañ ko ci groupe consultatif bu Paris ñi nga xam ne nag ñooy waa Haut Conseil bi ñoom jàpp nañ ne ren dinañ dem ci terrain bi bu baax a baax ngir yooyu la koppar ñu mun cee jëriñu. tey nekk ndorteel bi nekk bésub ubbiteeg euh, daje bu njëkk bi ñu fas yéene ci waxtaanee li nga xam ni moo soxal gouvernement bi ndax ñun dañuy xelal euh, président de la république ci wàllu politikam te ginnaaw euh, kenn ku ne xam na ni ba ñu jógee France. ak lañ fa jëlee ci ay koppar euh, président daa bëgg song loolu ñuy wax PAP 2 mooy maanaam ñaareelu pàccub plan Sénégal euh, émergent bi. ñu ñaax nguur gi naka lañu ñu mën a def ba gox-goxaan yi mën a jëriñu ci lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko. Ah, il faut que communes yi comme que dañ nekk si acte trois de la décentralisation ba nga xam ne léegi dañu wàcce seen euh, yelleef yi yokk ko yokk yokk yokk leen doole. jox leen ay jumtukaay yoo xam ne ku si nekk su fekkee ne am na nit yu xarañ yu fa nekk commune dina mën a jëm kanam. gannaaw ndaje mi nga xam ne moom la ñu amal ngir ubbi lii di session bu bees ñoom fa yéene ñoo invité ministre de l' agriculture ngir ñu waxtaan ci wàllu mbay mi. Pafa Xañ ñu sant la gërëm la ñu wax ci groupe Futur Média ni ko baaxoo di def xew-xewu diine amee ci kër kilifa diine euh, mu dem euh, seeti fa délégation bi nag euh, dem nañu nemmeeku ci xalif bi di ceex Thierno Madani taal jàppale ko itam ci seen doole waaye itam sàkku ñaan loolu aju nag ci ziara bi ni amal li ko dalee aljuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi ñu nekk jàpp dibeer ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci bile weer Abi Faye Modou Diop bokkoon nañ ci bile délégation. délégation bu groupe Futur Média demaat na te dalluwaay xalif bi di Thierno Madani Tall ngir li wàllum ziyaara annuel gi ñuy amal fii ci diwaanu Dakar délégation gi def na ko na mu ko daan defee ngir feddali kóllëre diggante bi nga xamante ne am na entre euh, président Youssou Ndour ak euh, Thierno Madani Tall nga xamante ne jiitu na télé bi relation bu yàgg la euh, tey ñu ñëwoon rekk Euh, féddali kóllëre bi euh, indi nag suñu participation bu ndaw. xalif bi bëgg lool te di ñaanal groupe Futur Media. ne kontaan na bëgg na bu baax a baax ne at bu nekk ni mu daan kontaane ren tamit kontaane ko noonu bu mu jéggi dayoo ne délégation ñëw teew ne àdd ak doomam bi Birane Ndour bokk ak ñi mu njaboot bi mu àndal yëpp ne ñëpp daal ay njabootam lañu. ne kontaan na bu baax seen teewaay fi tey yàlla nañ yàlla mi fekkee ko nega ni déwél indi ngeen tamit li nga xam ne bëgg bëgg na jàmm yàlla loolee lay jëfandikoo pour ñam jaamu yàlla mun a mot mun a sell yàlla nañ yàlla dundal dundal Futurs Médias dundal ki nga xam ne président moo jiitu Futurs Médias groupe Futurs Médias askan wi moo ko tax di jóg fu diine xewlee rek ñun dañ fa war a taxaw def fa suñu kéemtalaay kàttan groupe privé lañu waaye dañu am mission de service public. lépp luy jumtuwaayam directeur général bi ne dana ko jël jagleel ko lii di événement bi ngir lépp mën a yemb. dinañ mobiliser moyens yi ñu am yépp muy ci télé bi muy ci rajo bi muy ci journal bi muy ci support yi ñu am yépp. yëkkati enveloppe gudduun ak tamit. ay ndox yu bëri ngir jàppale leen ci wàllum organisation bi group Futur Média la ñu bëgg moo di di gën di yokk seen jëf ci këru diine yi nekk fii ci Sénégal. fay jërëjëf sant leen gërëm leen ci seen safo ak seen kóolute Sahara Cissé dina fi teew bu juróom-ñetti waxtu jox tey ci xibaar yi ci français ñu fanaan jàmm.